li ma metti nag moom te ma koy wax mooy bi ma defee loolu xam ne président de la république sant na ma assemblée gi nga xam ne fa lañ ma tànne woon di jàpp naa ne ñoom itam waroon nañ maa sant waaye maa nga woon ca salle ba mais bi ñuy falaat député yi wax nañu ba bàyyi ki jiite assemblée muy Moustapha Niass tuddul sama tur waxul ci liggéey bi te xam na ko xam na ne la ma fa def moom defu ko ci assemblée Sénégal ci leeral ci jubal ci yokk au contraire assemblée nationale du Sénégal boobu ba léegi day dellu gannaaw ndax doxul ci jub doxuñu ko ci transparence kenn xamu ca dara ne ma fi ma koy leerale mooy maay premier vice président assemblée nationale pop ci moom waaye waxuma la muy def waxuma lañ fay jaay waxuma la muy fayu waxuma fond noir ba mu yor nu mu koy joxee ak ku mu koy jox loolu rek wane na ne man la may liggéey fale moo gën a leer ndax man audit nañ ma ñaari yoon bu ci ne audit interne ak externe benn bi cabinet allemand ko def bu externe bi commission bi nga xam moo yor budget ak audit ak finance kat sénégalais bokk te muy Souleymane Ndoye ñoo ko ba même wax naa ko ci rajo yi ci des kenn joxoñu ma benn baaraam te gis naa fii tey ay société ak i entreprise nationale yoo xam ne yi Cour des comptes da leen ne dut baaraam ni leen fab ngeen fi alal judul jeex loolu nag lu mat a la ñu koy wax waaye nag réew moo xam ne képp koo xam ne la ma waxoon sëñ Mbaye Sy Mansour bëgg ngaa jub lañ la liggéeyloo nga seet sa digganteeg yàlla di ca wax la nga cay wax ñu ne da ngaa contre wala da ngaa noonu loolu lu jara seetaat la assemblée nationale du Sénégal nañ ko doxal moom itam ci yoon doxal ko ci dëgg député yi di xam di am sañ-sañu wax waaye président boo xam ne da ngay jaay nit ñi doole di leen xulli te amaloo kenn njariñ loolu de man Moustapha Cissé Lo du ma bokk ci loolu damay dénoncer loolu. comme néewul jërëjëf sax ñi demaloon Sénégal loolu jëppul rafetul Moustapha Niass na xam ne moomul assemblée nationale donnu ko fenn dañ ko faa teg rek ca parti am tegu ko fa parti bi ko fa teg APR la tudd te xeex li ñun ñoo ko xeex bu doon mooma rek du fa nekk ndax laaj na ba tàyyi ci parti am kenn falu ko kenn jox daa lang rek mu ñëw Macky Sall teg waaw man kenn du ma mas a dut baaraam ni ma dénk nañu la nga jël ca ab dërëm gaa yi nag mënuñu ko wax gaa yi yëpp assemblée nationale bu ma ni woon nañ ko audit ñu ne daa bañ Moustapha Niass te Moustapha quatre-vingt ans tegal na ko war naa nangu ñu jeex ko ndax mi ngi jëm ci yàlla digganteem ak yàlla soreetul kon loolu rek mooy dëgg nañuy la ñuy waxante dëgg te bàyyi jayante bi amalul njariñ Sénégal Sénégal sonn nañu ñu ngi bëgg a dee nit ñi xiifa ngi leen di bëgg rey alal juñ fi teg gaa yi pàccoo ko séddoo ko fa pare ni lépp ngi baax loolu problème la. Euh, président pour jeexal rek euh, xëy na kon mandat euh, président parlement bu CEDEAO jeex na fi mu toll nii naka lan lañ la mën a séentu pour nga jubluwaate fi mu toll nii. man kay ay mandat moom dama ceeb pare. <laughs> liggéeyal naa Sénégal ñeenti mandat liggéeyal CEDEAO ñaar ñeenti mandat waxoon naa ko mbiru wote ñu may fal ay mandat yi ak di leen ci pare naa parrainage li ma bëgg kay mooy toog nekk nag ab militant boo xam ne bu libre la bu moom boppam bu ma gisee loo xam ne baaxul dëppoowul ak li président Macky Sall digoon askan wi dëppoowul ak politique bi mu définir te ñépp d'accord ne baax na waaye ñu jox ay ministre wala directeur la ñuy jël ñu bëgg koo càmmooñoo xaalis ba ba pare bëgg tàccu leen danaa ni leen yoon wi ngeen jaar baaxul teggi leen yoon wi danaa ko dénoncer bind ko wax ko président de la république ak bu ma ñi ma ñi ma ko mën a wax foofu laa bëgg a taxaw beneen biir bëgg na maa taxaw kuréel goo xam ne ci ñi nga xam ne dañu néew doole la jëm mooy couche vulnérable yi bokk na ci ñi nekk ci prison yi ndax am na ñu ñu daan tëj leen te defuñu dara dafa ñu nekk metti ñenn ñi feebar ñu tëj leen te mënuñu faa jóge ñenn ñi amuñu mbokk yu leen fa mën a fekk te tëj gi léeg-léeg day yàgg duñ leen jugé ma bëgg a taxaw association bi may taxaw muy euh, euh, rajop mu taxaw ci leen toppatoo gone yi nekk ci mbedd mi it ak yenn daara yi ma taxaw ci lu ma leen mën a jàppale ma jàppale leen li ci des nag ci bay ak sàmm ci laa bëgg a dellu ndax foofu laa nekkoon am naa jot gu ma ko defee képp koo xam ne ki bëgg na ci ànd ak man ñu ànd ci am naa ñu ci xarañ xam naa leen ñu mën a gasi teen ñu mën a defar suuf ñu mën a andi jiw woo xam ne loo fi bay mën nga ko yóbbu bitim réew muy fraise muy lu demee ne avocat muy lu demee ne tamaate lu mel ni xaal am na ñu ko soxla ci Amérique latine te bari na ay milliards lañ ci soxla ñu defar suuf yi wax ak yi ñu jéem a bay buñ paree sàmm gi ñu jëm ci développé ko gudul sàmm gi wuti ay nag Afrique bi Sud wuti ko Espagne ak i xar ak i bëy ñu sàmm ko réew mi développé man loolu ci laa xalaat mooy sama fi nga xam ne foofu laa war a toog li des ci suma dina ma consacré ko waaye politiciens yi moom dootuñu ma tardel ndax ñoom ñëpp ñuy wax nekk ci opposition ak ci parti pouvoir quatre-vingt pour cent yi li ñuy wax gëmuñu ko gëmuñu seen bopp dañuy nax nit ñi ak wut fu ñu dunde ci kaw nit ñi liggéeyaluñ kenn seen bopp la ñuy liggéey loolu nag amul njariñ ndax gannaaw lu ñu la jox nga def ko ci sa poos ba pare na nit ñi laa fi nekkal loolu ay nax la ndax doo waxal nit ñi dara lu leen jariñ ak loo xam ne danañ mën a am seen autonomie ba mën a liggéey am kër gu baax ami soxna di lekk-lekk gu baax loolu nag buñ ko deful day mel ne dañuy nax nit ñi